amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nuy dellu siwaat ci lël bu am solo bi nga xam ni ëttu minhaaju sunna nabawiya moo koy faral di amal rawatina ci waxtu wi ngir mën a ànd ak jullit ñi xamal leen leen di xaar ci weeru koor bi ci ay atte ak i xikam ak i njëriñ ak i ngëneel ñaan yàlla sunu borom yàlla def ko ci balance yi wu ñi nga xam ne ñoo ko doon taxawee Euh, li nga xam ne moo ci sunu wàll ci waxtaan wi muy lu aju ci taamulaatun fi ayaati siyaam muy ay settantal yoo xam ni dafa aju ci laaye alquran yi nga xam ni dafa jëm ci wàllu koor ak li ci aju euh, xam ngeen ni koor buñ ko waxee euh, du ñàkk ni ñi fi jiitu xamle nañ luy woo koor ci ni mu gën a yaatoo waaye ci gàttal rek arab bu waxee as-sawmu lam ci jiblu moo di ak jàpp bu muy jàpp njaamuram ci yi nga xam ne sharia da koo tër ngir bañ ko ci àgg moo xam ak lekk la moo xam ak naan la moo xam ak jaxasoo la fi jant fi nga xam ne fa la fajar bi xare xar xar gu wér ba keroog muy so waaye muy yéene ci ak jaamu yàlla loola kon ci loolu lañ jublu ci li nga xam ne moo di koor donte koor ci alluga moom mooy assabaatu wal imsaak waaw xayrun siyaaman wa xayrun gayru saaimatin kon loolu la koor di tekki suñ borom ni inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya aaya yi nga xam ne nag boo koy septembre mu jëm ci wàllu koor ak di ci aju ak atte ya man nañu wax ni yi nga xam dafa aju ci wàllu atte yi du génn ay sunu borom yàlla tabaraka taala dajale ci suratu albaqara yi dajale ci suratu albaqara tàmbalee ko ci yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية تفصل يب daanaka mën ngaa wax ni yooyu laaya ñooy umda ci bunt bi maanaam ñooy sukkandiku kaay ci bunt bi waaw laayay eh, téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar daanaka ba laayay téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñooy umda ci bunt bi donte am na yeneen yu tasaaroo waaye yooya mën nañoo wax ne day aju ci wàllu yeneen i bànqaas yoo xam ne mën naa jokkoo ak koor waaye àttee dëgg-dëgg ak santaane ya ak farataal ga ak la ci aju du génn ayaat yi nga xam ne ñoo rot ci suuratu al-Baqara eh, boo jëlee laay yi nga xam ni <clears throat> maanaa moo jiitu ci laayay suuratu al-Baqara bi nga xamee ni xam nga ni suuratu al mooy saar bi gën a gudd ci alquran moom saar woowu bu fekkee ni yaa ngi gëstu lu jëm ci wàllu atte muy ahkaam amul saar bu ko ëpp li ñuy wax ayatul ahkaam ci biir alquran karim ni ko alallaama ibn alarabi almaliki waxee ci ci ahkaam alquran ahkaam alquran alkarim سن برم تبارك وتعالى تلاقي جيتون أنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه لا جوج بوكاي سام تامبر ادي كو سيتون تال بروم تبارك وتعالى دا فا نيو دي تاغ جيمي ndax ba mu ne ba noppi nag jokkale ko eh, wàccug alquranul karim ca am ak ràññetle am ak jeqee ci biir weer yi ndax wàcce gi sun borom toog taala wàcce alquran moo lay woon da koo ci biir weeri at mi ngir wàcce ci téeram bu màgg boobu ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam loolu mooy li ci li ñu settantal ci jusiya boobu yi mooy tànn bu sun borom tànn weer wi ak tagg gum tagg weer wi ak màggal mu màggal weer wi waaye itam ci laaya gi dañ ciy gis ni yàlla sun borom tabaaraka wa taala waral gum waralit ci biir laaya ji képp koo xam ni teewe na terutel kooram teewe na terutel weer wa mu daal di mën a woor bu fekkee ni mi ngi sax ci dëkk bi nga xam ne tukkiwut ba noppi nag ànd ak wér gi yaram comme ni ñu ko xamee ci ay sartam su boobaa yoonal nañ ci moom mu woor nga xam ne amul sabab shar'i boo xam ni mooy tax mu mën a dog loolu it feeñ na ci li nga xam ne mooy juz'iyya bu màgg boobu ci biir saar wi moo di faman shahida minkum shahra falyasum waaye itam boo delloo waate ci jus iya bu njëkk bi it mooy weer wi ci laa wàcce alquranu karim liñ ci war a njëkk a dégge moo di màggal gu nu war a màggal alquran ci jamono ju ne ak waxtu wu ne waaye rawatina waxtu weeru koor nag moom ndax ku toll suñ borom yàlla tabaraqa wa taala wax ni ci weer wi ci laa wàcce alquran kon loolu ci li nga xam ni moo di eh, liñ ci war a déggee mooy kon jullit ñi war na nañoo bàyyi xel lool alquranul karim war a delluwaat dellu gu yees jëm ci téere bi ci jàng ga ak settantal ga ak mokkal ga ak jëfe ga ak jariñoo ga lépp dafa war a feeñ ci li nga xamante ni mooy weer wi yàlla sunu borom tabaraka taala it leeral na ci laaya yi jiitu laay yi jiitu te mooy laayey téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ci la sunu borom ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون laay sunu borom tabaaraka taala it ñu ñëwaat di ñu fi leeralal lu jëm ci yoonal gi nga xam ni yoonal na ko ci bépp julit boo xam ni ngant amu ko mu woor weeru koor waaye nag mu boole ko ay atteem atteem yi nga xam ni moom la koor am ca lam bëgg ak la mu bañ lépp yàlla sunu borom tabaaraka taala dëxañ ko ci laaya jooji kon la ci jiitu moo di farataal gu suñ borom farataal ci jullit ñi ak mboolem xeet yi jiitu woon li nga xam ne moo di koor lool nag jubluwaayu yoonal gu suñ borom di yoonal xamal ni mooy jublu ci mu doon maslaha ci jullit ñi di leen mën a dimbali ngir ñu man a mottali seen jëf yi nga xam ni moom la leen seen boroom sant waaye may leen occasion bu màgg boo xam danañ ci mën a njëkkante jëm ci aw yiw njëkkante def lu baax xam nga ne ab jaam ab julit fu mu toll fu nekk dafa war di njëkkante jëm ci aw yiiw fastabiqul xayraat ila allahi marjiukum jamian suñ borom neen njëkkante leen jëm ci yiiw ña yiw ya waaye nag yéen ñëpp xam leen ni bis danañoo ngeen dellu seen borom saabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ardu uiddat lilmuttaqin loolu nag moom mooy li nga xam ne moo feeñ ci sunu borom yoonal gi mu yoonal weeru koor waaye yàlla nag ginnaaw bi mu ko yoonale ba noppi nag mu ubbiwaat ak woyafal ni ayyaaman maadudaat ay bis la yoo xam ne bis yu ñuy lim la maanaam bis yu néew la nekkul lu bari ñu tegtaloo ci loolu ci woyaf gu sunu boroom tabaraka wa taala woyafal gépp jaamu yàlla bu mu sant xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam amul genn jaamu yàlla goo xam ni da ci yëg ak diis lu dul yàlla dana indi ak woyafal ginnaaw ga ànd ak ni sunu boroom sax dafa woyafal koor ak la ci ca way téewul mu sette wat ci biir jaamam yi mu ko sant ki nga xamni dafa febar wala mu nekk ci tukki borom bi ni faman kana minkum maydan aw ala safarin fa iddatu min ayamin uxar mu wat geneen yermale ak geneen woyof go xamanteni feñat na ci koor yàlla sun borom nit feñalat ci yërëm gumu mu yërëm jaam ci wa ala alladina yutiquunahu fidyatun ta'am miskin leeral foofu nii sunu borom woye falal na ñi nga xam ne dañoo feebar wala ñu doon ñuy tukki ñu mën a dog ci weeru koor ngir woyefal gum leen di woyefal ak yëkkati gu mu yëkkati li nga xam ne mooy coono goo xam ne mën mën nañ koo toggoo bu fekkante ni woon dañoo ànd ak koor ba jafe-jafe ba deñ wala feebar ba wér mu ubbil leen beneen bunt boo xam ne mën nañ ko ca faye loolu it tegtalewaat li nga xamante ni mooy yërmaande borom bi tabaaraka wa taala ci ay jaamam laay ji dafa ñëw di junju junju bu fés ci li nga xamante ni moo di togg goo xam ni borom bi tabaaraka wa ñëw na di ko togg ak jëf waaye nag togg gi muy togg jëf lépp dafa tëdd ci woyafal nga xam ne jullit bi bu fekkee dem na ba tële nga xam ne amul kattanu woor sunu borom sax may na ko mu bañ a woor waaye mu daal di layal li nga xamante ni mooy mis ay al miskin sunu borom ni képp ko xam ne am nga ngantul koor sañ nga leyal ngir xam ni borom bi tabaraka wa taala tegalul kenn lu mënut wa ma jaala alaykum fi diini min xaraj loolu kon gisoon nañ ko ci ginnaaw ci li borom bi waxoon ni shahru ramadan alladi unzila fi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum shahra falyasumhu ginnaaw nga yàlla sunu borom tabaraka wa taala andi ci ak woyafal ba tey sunu borom tabaraka wa taala ci laay jooju mu ñëwaat di leeralaat sabab yi nga xam ni mooy wane ngantul sharia goo xam ni jaam bi su fekkee ne am na ko yàlla sun borom jox ko ngant muy lim ni wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون yàlla borom bi tabaraka taala ci laaya yooyu mi ngi leeral ni ab julit day bu fekkee am na ngantul woor mën na koo fayaat ci yeneen bis yoo xam ni bi bis ñu ràññeet la ci biir at mi kadalika ci biir ji boo ko seetantal da ni am na ñetti jubluwaay yu mag yoo xam ni daa mel ni aji woor ji buy génn ci kooram moom la war a génnaalee ñetti jubluwaay yoo xam ne yu mag la bi ci njëkk mooy ikmaalu iddati shahr wa itmaamu siyaam jaam bi war a góor góorgóorlu kemtalaay kattanam ba matal li nga xamante ni mooy li mu koor ga moo xam limu mu bis ya moo xam matal la nga xam ni moom la borom bi tabaaraka wa taala sant ci na ko war a jooxee ak nang ko war a taxawee waaye itam matal koor gi ca rafetal ko ak defin wax itmaam ñaare dana gën a xóot rek ci nga ne woor naa bis yëpp waaye nag nga rafetal koor ga matal ko te na ko sun boroom tabaraka wa taala santaane ndax kat bu dul loola man ngaa sonn ci bañ a lekk ak naan te fekk na doo ci am benn tuyaaba nam saxee ci xarisu abi hurayrata radiallahu anhu wa ardah ida lam yakun fi sawmi minni tasaawunun wa fi basari gabun wa fi mantiqi samtun fa xasbi idan min sawmi aljuu walzama fa in qultu inni sumtu yawman fa ma sumtu kon doomu aadama ji saa boo xamante ni moom kooram amu ca lu dul yooya may junj na xam ni kooram lam ca góobi bariwut ñaareel ba moo di kabbar yi nga xam nit ko da koy kabbar ci biir jaamu yàlla gu màgg googi li mu wax ni wali tukabbiru allaha ala ma hadaakum wali tukmilu l iddata la jëkk a wax tegte ni wali tukabbiru allaha ala ma hadaakum kabbar gi ñuy kabbaral borom bi tabaraka wa taala ci li nga xamante ni mooy koor te abdullah ibn abbas xabrul umma wa tarjumaanu alquran wana ni kabbar yooyu eh, guddi gi nga xam ne mooy guddi gi ayit ga eh, moom lay tàmbalee ba xëyaale ko ci la gën a wér loolu it màggal sunu boroom ak rëyal ko ak di ak di ko tudd ak di ko kañ dafa ànd ak li nga xamante ni moo di koor kon bokk na ci maanaay màggal kàbbaral sunu borom mooy màggal ko ak réyal mbiram ak taxaw ci ay santaaneem ak ay tereem li borom bi wax ne wa li tukabbiru llaha ala ma hadaakum ngeen kàbbaral yàlla bi maanaahu ngeen màggal ko ngeen màggal sunu borom te màggal ay mbiram màggal ay santaaneem waaye tam waggar li nga xam ne mooy ay tereem loolu day bokk ci jëfe santaane yàlla waaye day day bokk ci màggal yàlla sunu borom tabaraka wa taala ba tey bokk na ci liñ mën a jariñoo ci laaya jooju déggee ko ci moo di sukkurullahi jalla jalaaluhu ndeke tey koor bokk na ci lim ëmb mooy sant sunu borom ndax moom yàlla dong mooy ki nga xam ne moo yeyoo ak sant moo yeyoo ak cant ci nan nga koy sant mooy saxoo jëf-jëf ju baax ndekete léeg-léeg sant yàlla fexe ba sax ci ay jëf loola mooy dëgg dëgg sant moo tax waa kër Daawuda alayhi salaatu wassalaam bi yàlla di màggal seen jëf daf leen a joxoñ yoon wi gën a gaaw ci sant ni i'malu ala daawuda shukra ba noppi nag wane ni ñu baree baree bari ci jaam ñi ba léegi dese nañoo sant seen boroom wa qalilu min ibadiya shakur kon loolu feeñ na bu baax a baax ci li nga xam ni moo di laaya ju màgg jooji ak lenn ci ay atteem ak ay ahkaamam incha allahu taala ginnaaw ba ñu ñëw ci lenn ci aadaabu ayaat yi nga xam dafa aju ci wàllu aadaabu siyaam fi alquran alkarim ba tey ci laaya yu laaya yu gis ni borom bi tabaraka wa ma ngay ñëwaat di nu leeralaat lenn loo xam ne dafa aju ci ay teggin muy tegginu koor ci alquranul karim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 araamoon na ci jullit ñi ci jamonoy guddi ginnaaw bu ñu xasee ba nelaw rek ñuy lekk baa ñuy naan baa ñuy booloo loolu nag boo ko seetal da yëg ni am na ak coono gu metti gu ci nekk ba mu amee ci la sunu boroom ñëw ak woyafalam daal di leen woyafalal loole daal di daganal ci guddi weeru koor mboolem guddi gépp mu daganal ci lekk ak naan aku jaxasoo cib sëy moo xam nelaw na moo xam nelawut ngir ni ñu bari ci ñoom ndigal googu suñ borom eh, digaloon jaam ni daawuñu sàmmoonte ak moom daawuñu ko respecté boo seet loo it laay ji ñëwaat na kon lool loolu ñëw di tegtalaat woyefal ak yërmaane gi sunu borom tabaaraka taala yërëm ay jaamam mu ñëwaat di leeral moom laay ju tedd ji ni daganul kenn di jonjoo maanaahu ci ab sëy bu fekkee dafa nekk ci li nga xam ne mooy al itikaaf di ànd ak soxnaam nga xam ne foofu kon leeral na fa jaamu yàlla gu mag jaamu yàlla gu bari tuyaaba jaamu yàlla gu man a jokkale jaam bi ak boroomam muy itikaaf te mooy sax te néegub yàlla dappetoo jaamu yàlla ci julli ci jàng alquran ci tudd yàlla ba keroog weer wa feeñ nga doog a génn loolu la sakkani day jokkale jaam bi ci boroomam tabaraka wa taala ba tey dégg nañ ci maanaahu ndekete itikaaf muy jaamu yàlla gu màgg goog yi ginnaaw bu ñu yégee ni dañ koo yoonal ci laaya ji waaye ndekete du wér lu dul ñu defe ko ci li nga xam ne mooy néegi borom bi tabaraka wa taala waaye sunu borom tabaraka wa taala santaane li nga xamante ni mooy al iltizam bi xududillahi tabaraka wa taala sàmmonte gu ñu war a sàmmonte ak tënku gu ñu war a tënku ci ndigali yàlla yi fi leen sunu boroom yam loo ñu yam fa tëri yàlla yi ñu bañ koo jéggi waaw tëri yàlla ñu bañ koo jéggi jaamu yàlla boo gis am na ay tëri yuñ ko tëral waaye tëri yooyu dañ koo war a sàmmonte ak moom moo xam santaane moo xam la nga xamante ni tere ya mooy tere ya kon loolu dafa aju ci ay teggiin yoo xam ni yàlla sun borom tabaaraka taala xamal xam le ko ci laay ji ngir yërëm gum yërëm ñi nga xamanteni ni ñoo jullit ñi waye nak ginaaw ga yàlla indi waat yenen aya yo xamni deug la ayatu siyam fi alquran waye dafa ñëw nak nek kafaratan lizunub nek kafaratan lizunub manam do ma doomu ji lek lek mu am lu mu def lo xamni dañ nan ko wooral waaye soo wooree لولا غادي فون مول نغي يعني داكوي جان واتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو, أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب gis nga yàlla sunu borom tabaaraka taala ndekete koor màggaayam feeñaat na ba àgg ci ki nekk ci geneen jaamu yàlla am lum ca def loo xam ne amaana wuute na ak nañ ko sante woon ndekete bokk na ca ya ko mën jàng man koo defaraat man koo ñoŋal mooy woor gu muy wooraat nga ki nga xam ni moo dem ba ci barab yu sell yooyu mu def lenn ci yi nga xam ni مثلا دافو ووتي اك نين كو سانتي وون في جيف جيه ولا بوك مو دون كو خامن دا فيبر ولا مو ام جافي جافي بروم بني ففيريه من صيام من نا جوتو جوتو غو خامن كور لاي دون مو جيتال كور ولا بوك مو جوتو جوتو غو خامن سراخي لاي دون ولا مو جوتو جوتو غو خامن داي ملني امانه جامو يالا رين با معناها نكو نورو waaye tam gis nga bu fekkee nit ci am na luñ ko sant ni ko def ko lu mel ni tour deret muy xëy te amoo ko ñu ne boo ko amut nga woor ñetti ñetti fan ngir mën koo jànge loolu gis nga loolu ci wàllu aj la la ko sunu borom tabaaraka wa taala junjee nga ñëwaat ci geneen anam nga xam ni doomu aadama ak ni ko sunu borom fonke bakkanu ab jullit ni mu ni mu ni mu ni mu màggee ci suñ boroom tabaaraka taala ak ni ko yàlla aaree ak ni mu ko aarloo bañ kenn ku ko laal maa lu koy jege lu dul sabab boo xam ne sharia nangu na teewul doomu aadama mën naa juum ba faagaagal ab jullit waaye yàlla defal ko génn waay fu mu mën a jaaree mu bokk ci génn waay boobu it koor suñ boroom ma kaana li muminin an yaqtula muminan illa xataa ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما سلبرنا كيف كو خم دا فجوم با فاغاغل اب جوليت اه كوكا داي سونو بروم امنا اي بونتو يم كو اوبيل غير مو مانا جوتو غير مو مانا jotu bokk na ci goreel ab boo xam ne ab jullit bu gëm waaye bu fekkee nag amu ko baa mënu ko soo bam na na daal di woor ñaari weer yoo xam ni dafa toftaloo ngir yàlla man koo nangul ak tuubam waaw suñ boroom man koo nangul li nga xam ne mooy ak tuubam yàlla suñu boroom abduwaat ci suratul maa'ida ni laa fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون bokk na ci màggaayu koor itam nga xam ne ay solution lu bari lu ay solution la ci jaamu yàlla yu baree baree baree bari sunu borom tabaaraka taala nee nag ki nga xam ni dafa giñ te ngiñam googa jubluwu ci jubluwu ci dëgg-dëgg ngiñ waaw kooka sunu boroom du ko jàppe loolee waaye doomu aadama su giñee loo xam ne nag moo tax ngiñ fasu kooka nag faw mu leel fukki miskiin jox leen ñu lekk wala boog mu wodd leen wala mu goleel ab jaam yooyu yëpp bu fekkee mënu ci dara suñu borom nee na daal di woor ñetti fan gis nga foofu it ndeysaan ñu daal di ubbi la benn buntu jaam bi mu mën a woor ci li nga xamante ni mooy ginnaaw ba mu nekkee ci maanaahu ay jafe-jafe yàlla suñu borom ubbil ko bunt boo xam ni dana mën a daal li nga xam ni mooy ngiñam qad farada allahu lakum tahillata aymaanikum loolu feeñal li nga xam ne mooy màggaayu koor waaye feeñal it yittewoo goo xam ne alquranul karim woo na ko koor waxuma rek ci woor weeru koor waaye nag yi mu amal relation ak yi mu jokkool ci ay xeeti jaamu yàlla yoo xam ni koor da ciy doon solution boo xam ne mënta ñàkk sunu borom nit mi ngi ñëwaat di adduwaat ci geneen anam goo xam ne koor génnuwaay la ca ci suratul maida borom bi ne yaa ayuha alladina amanu la taqtulu sayda wa antum xurum ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام يعني سن برام تبارك تعالى من جواب دي ليرال لو خامني سي خيتي جامو يالله يالله وخوني نغن كو مويتو واتانديكو كو الله جي بيغا dafa nekk ci barab yooyu nekk ci ak jaamu yàlla suñu borom nee na na nga wattu rëbbum jéeri nga wattu rëbbum jéeri bu fekkee nag da koo def ci tey ah kon su boobaa faaw am nag xeetu sanction yoo xam ne day daanu ci sa kaw faaw nga xool la nga rey lan la war a méngool ci maanaam juri kër nga daal di ko génnee mu nekk xëj yu ngir mën koo jàng bu fekkee am nga loola wala bu dee mënoo ko nag nga leel leel ñam ay miskiin ndax loolu ñëpp mënuñ ko waaye su fekkee mënoo ko nag moom sunu borom nee na na daal di woor na xool loola na mu toll mu jéem koo lim ci ay fan daal di ko woor ngir yàlla sunu borom daal di ko ubbil li nga xam ne mooy maxaraj moo tax borom bi ne afa allahu anna salaf ginnaaw bi koor ñëwee mu ne sunu borom day jéggale na la nga xam ni moo jiitu woon ci tooñ ak jalgati ci barab yu sell yooyee waaye nag wa man aada fa yantaqimu allahu min yàlla borom bi tabaraka taala it gis nga foofu ba tey bokk na ci jaamu yàlla yi nga xam ni koor da ciy daal di nekk li nga xam ni moo di génn ak solution moo di loolu nga xam ni eh, yàlla sunu borom tabaraka taala tudd na ko ci njaalbeenu al mujadala muy ci masalatu zihaar jaam bi nga xam ni muy borom kër bi nga xam ne daa am kàddu gu doy waar gu mu wax soxnaan te bokk ci kàddu yi nga xam ni ab jullit da koo war a sori moytu ko bu baax a baax a baax bu fekkee ni da koo wax soxnaam ba noppi bokk na ca ya ko yàlla sun borom tabaraka taala defal ngir mu doon génn waayam الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم سبحانه الله تبارك وتعالى بتاي من ليرالال jokkoo gi nga xam ni koor am na ko ak yeneen jaamu yàlla yi nekk ci solution mu mën a bokk ci li nga xam ni moo di settantal gu ñuy settantal ayatu siyaami fi alquran alkarim suñ moom nee na bu fekkee ni zihaar dafa am te mooy kàddu yooyu jóge ci boroom kër jëm ci soxnaam te mu doon kàddu yu ñaaw bokk na la bokk na ci la koy jàng moo di woor goo xam ni boroom këram de daal di woor ñaari weer yu toftaloo ginnaaw ba nga li jëkk muy àndal ak soxnaam sax su fekkee amu ko mu daal di leel juróom juróom benn fukki miskiin yàlla borom bi tabaraka taala nee na loola dama ko indi nag mu doon punition ngir man koo yare jullit ñi ngir mën a nattu seen ngëm yàlla xool ñi gëm borom bi tabaraka wa taala ak ñi gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi gëm yàlla fas yéenee def ay ndigalam ak ñi nga xam ni gëm nañu yonent bi alayhi salatu wasalaam ba lépp lum jàngale baa mu jottali ko ñu man koo jëfee borom bi saa bu tuddee jaamu yàlla yu mag yu rëy yooyu des mu daal di tudd xududullah wa tilka xududullah loole mooy frontière yàlla loole mooy jéeri yàlla yi loolu mooy dig bi nga xam ni waree su ko jéggi mukk bu fekkee ne jaam bi bëgg naa am tawfiq te yàlla waxoon na ci baqara ni tilka xududullahi fala taataduha wa man yataadda xuduud allahi fa ulaika hum alzalimun loola mooy digug sunu boroom mooy tëralin yàlla yi rekk waaye bu leen ko jéggi ndax kat képp ku jéggi yi nga xam ne mooy tëralin yi yàlla sunu boroom tëral jullit bi war koo war caa taxawlu nee na ñooña mooy ña nga xam ne ñooy ñi tooñ seen bopp waaye mooy ña nga xam ni ñoo tewoñ seen boroom tabaraka wa taala kon mbokk yi nga dellu si waat tënkaat aay yi nga xam ne dafa jëm ci koor jullit bi war koo settantal bu baax a baax a baax waaye ginnaaw bu ko settantale ba noppi nag mën caa génne loo xam ne dafay daal di yóbbaloo ci biir weeru koor junjoon naa ko ci njaal benn waxtaan wi ma ne amul lu gën a rëy jaam bi yóbbaloo li nga xamante ne mooy alquranul karim ci biir weeru koor yi moo tax mag ñu baax ñu fi jaaroon nga gis nañ doon yittewoo alquranul karim ci li nga xamante ni mooy weeru koor yi moo tax laaya jiñ jiital donte am laaya ju ko jiitu sax waaye nag sagam dafa lënkaloog alquran muy chahru ramadan alladi unzila fihi alquran ngir lënkalewaat jàmm ak alquranul karim ci biir weeru koor jokkale ko ak téere borom bi tabaraka wa taala mu delluwaat delluwu wér ci jàng alquran ak jàngale ko ak settantal ko ak jariñoo ko loola lépp dafa war a feeñaat ci suñuy taxawaay feeñaat ci suñuy wax feeñaat ci suñuy jëf ci li nga xamante ni mooy weeru koor wii nga xamante ni moo nekk ci bunt yi di yëglu ñu ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka taala yàlla na yàlla indil weer wi ñaan yàlla sunu borom tàggat suñuy cër bañ mën a taxaw ci santaane yi ci yàlla santaane joxe ko comme ni ko yàlla suñu borom bëggee waaye lépp loo xam ne mën naa wàññi suñu tiyaaba wala muy indi sànjuk borom bi tabaraka wa ci biir weeru koor bi ñu ngi yàlla suñu borom yal na yàlla musal ca loola yàlla aaral nu suñuy cër aaral nu li nga xamante ni moo di eh, lépp loo xamante ni mooy xeetu fitne yi nga xam ni day alaw ci ku bi di yàq ak jaamu yàllam baa muy li nga xamante ni mooy tiyaaba ñu ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala musal ñu ci loola te yàlla àggaleel ni weer wi te ginnaaw bu ñu ko wooree yëpp lépp loo xam ni moom la ci digge ci ay yiiw ak barke ak ay nafahaat ilahiya wa rabbaniya muy ay may yoo xam ne day bàyyeekoo ci suñ boroom di ñëw ci ay jaamam waxtu wu nekk nag waxtu wu nekk waaw weer woo xam ne màggaayam mënee su ko jeexal hmm, na ko aji wax ji waxee woon ni shahrun yafuuqu ala shuhuri bi laylatin min alfi shahrin فضل التفضيل طوبى لعبد صح فيه صيامه ودعا المهيمن بكرة وأصيلا وبليله قد قام يختم ورده متبتلا بإلهه تبديلا يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجل حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الداني أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته